bésub ñaan la amal taamu nag daara alquran yi nekk ci tuubaa wàcc ay kaamil yu takku boole kook def ay bernde ànd ak ñoom dog ak ñoom ku def lu mel di aji sekk di responsable politique bokk si Pastef bu Touba nekkit sa commission sociale ba nekkit responsable bu Mojib fii si Touba Daaru Xuddus la doon amale activité yi ginnaaw bi mu seet si nag daara ji jox leen lu takku si ay bernde ànd ak tout tànk yi jublu si rek ngir ki nga xamante ni mooy seen leader di Ousmane Sonko mu mën a am jàmm ñu mën ko afiyal mu mën a tamit wéyal liggéey bi ba présidentielle bi mu jot bopp réew mi ni mu ko biralee moom soxna Adji Seck si Touba. mu ñuy jàpp suñu nit ñi di tëj waa Pastef ñi waa Seydina Ousmane Sonko ñu koy sonal ci laa tey nag ma jàpp ko war koo togg ne ah, xam na kat dañ koo woo suba le 17. ma ne dinaa ci wàccee waalee kaamil daanaa ci daanan ci wàccee kaamil nag waaye tey dama dañuy wàccee kaamil boole ko togg ndog yi ni togg yóbbu ci daara yi àndee koog magi Pastef yëpp ñoom ñëpp fa lañ mag magi Pastef ñëpp fa lañ yendu wax dëgg yàlla ak waa social bi bi nga xam ne man ci laa bokk ci Pastef sonn rek moo moo nu ci dugal ak ak ak njaboot njabootu ci dugal te xam ne um, Seydina Ousmane Sonko projet bi suñuy sët ba suñuy sëtaat seen njariñ dana leen ci fekk moo tax ñu ciy sonn moo tax seen déplacement bi ak seen coono tey bi ci tàngaay yi ñu ànd koog man ba nga ni si mu sonn ci Pastef loolu moom it ma tegaat ci Cheikh Ndiaye ba kee sañ Mbacke njaay mais moom it responsable la nekk xayma ya maasa xayma ya di sama càmmiñ moom it fii la yendu tey moom it di ku sonn ci parti bi ca parti bi nag man li ma wax rek nee naa leen man xooluma ci lu neex xooluma ci lu naqar ndaxte maa xool ba mu neex ma ma dugg ne man maay maa dugg bëgg a jàppale Ousmane Sonko ndax projet neex na ma te li mu wax incha allah rabbi bu nu yàlla la falee cet bu nu toogee heure bii déwén ba mu nekk ci pale bi danañ xam li tax ñu ko doon ñu tax ñu duggoon ci yàlla buñ ci am dara lu muy réccu waaw ndaxte ñun ñoo xool ba mu neex ñu ku na ci yëg ñu ngi ci ku nu ci yëguti danañ ci nekk rek ba keroog ñu koy dugal pale ñun moom rek lañ bëgg soo ko daal féeg mi ngi ci nii féeg duggut pale incha allah rabbi duñ daw duñ yuqat duñ tàyyal dañuy ànd ak moom rek incha allah bu heure bii demee koor gii day fekk mu nekk pale bu ci yàlla ànde ndaxte suñ dooleek suñ lépp daal dara daal bu dee sunu ñaan ñu ngi ci bu dee sunu doole dana ci dem ak sunu lépp daal dawuñu ci dara lañ ci dawut ndaxte ñun ñoo xool ba mu neex prochain bi mu ñu jaay ñu bëgg ko li ñuy ñaan daal na ko yàlla musal ci cat musal ko ci pexem noonu loolu la ñuy ñaan di dellusiwaat nag di sant euh, borom kër gi ñu nekk muy Alaaji Lay ak Bàcci Lay ak Tafa Lay ak mboolem du njabootu sëñ daam gi ndaxte bu fekkee ne nii buñ doon ay yaafus mbaa ñuy ay yambar daara ju fi nekk ba nëgën sii kon daara ji ba seen bàyyi génnee àdduna lay fay. fii nag te woon na fii mboolem responsable mu di góor waaye tamit jigéen ñi tamit kenn wuteewu ko woon waaye nag yëkkati nañ fa ay kàddu ñoom ngir jàppale seen sœur bii di yëngu si wàllu politique doon jàmbaar fakk tëdd si Touba ndax gis nañu ni kat lii muy def tey moom la responsable yépp war def ngir soqali Pastef naam sax nag ma nga fa woon waaye ñu gën a nag am majorité si Touba waaye tamit gën a lawal xeex bi ba nu may affiye seen njiit Ousmane Sonko. soxna si nag fi mu daaneele rek laay ñëw moo ci wàllu njàng ndax ñoom daanako loolu loon topp ba famille bi sàgganewuñu njàng jël seen lépp def ko muy njàng yal leen yàlla gën a jàppale te xam ne njàng moom lu ñu dal ñun Afrique moo nu ñàkk a jàng moo nu ko teg kon nag bu ñu gisee kuy kuy def ci jàng dara war ko taxaw bis bii nag ñun ñi nga xam ne ñooy Pastef dañ ko yàgg a defal euh, président Ousmane Sonko saa boo xamee ne nii convoqué nañ ko rek ci dara ba ñu suba la rek jën ko wàccee ak kaamil di ñaan yàlla ndax ñun ñaan lañ am ndax yàlla moo wax ne ñaan leen moom moo may leen te yàlla dogal na yàlla yàlla buur la buur boo xam ne yàlla toll ni yàlla nag ku mun a ñaan ma may la loolu la ñu gëm te ay jullit lañu di taalibe Sëñ Tuubaa dëkk Tuubaa moo tax suñu lépp ba ñuy te dara ñaan lañ ciy jubal te sant ci yàlla nag bu baax Ousmane Sonko moom yàlla dogal na ñoo ngi ko topp mi ngi dox ñoo ngi sant yàlla ci mi doxeet jafe-jafe yi yëpp du dara du dara lépp dana mat incha allah liñ ci bëgg yëpp dana am ndax ñu nii ñëpp di mag di def lépp jublu ci jiw nekkuñ dara lu rek bëgg lu baax ndax bu fekkoon leneen luñ ci jublu kon dana dem defi leneen waaye gis nañ ne xale yi xale yi ñoo ko gisal seen bopp mu doy leen buñ ko gisee mu doy leen ñu topp ko ñun bi ñu bi ñu di alal dimbalee ci magi Sénégal ndax mag yëpp ñu ngi leen ciy woo ndax ñu ñun ay mag lañu ci biir magi Sénégal bi ñu dégloo xale yi teelu xale yi dañu xam ne xale yi lii ñuy lii ñuy topp am lu ci ne bi ñu teeloo Ousmane ko lañ gis ne lii lu mën a jàpp la. Pastef nag dafa wuyu aw turam ndax kenn koo gis Pastef muy ka nekk Madiana ka nekk Sura ñëpp benn la ku ci gis sa moroom rek. yaa ngi ko def be euh, kii loolu nag moo tax suñu waa boor bee loolu moo leen tëb moom lañ amut moo tax mënuñoo kontaan chaque jour xol bu tàng rek ci la dëkk. loolu nag président Ousmane Sonko la ko suñu borom defal. di fàttali rey na nag boole koog ay berne classe gu bari également yóbbu ko si tout tànk yi ñoom it ñu yendoo jàng ay kaamil ngir li nga xamante ni moom mooy teq-teq yi nekk si yoonam mu mën a fànku soxna Aji Seck joxe waat rendez-vous si yeneen jour ngir yeneen activité